Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la confiance au nouveau les hein. Merci de louer des likes, merci de louer des abonnés, merci également Gaël de baisser les commentaires. Un plaisir au nouveau les chaque fois de partager gain information inbox sénégalais fait pour les 14 régions du Sénégal roxroxa di gorgora di ñi ngi leen di jaajëfal ñu également ci lalu hôpital yi ci kër de tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñëw rek jàmm ñu nekk ci kase yi aussi erreur judiciaire gi ñeneen def moo leen fa borom génn leen fa delawaat leen seen i ñi deux doigts de nous, suñu borom xale naa dana fi def si Gaël te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie de eSport TV et de de Show l'actualité en contenu actualité bi gañu fassene Tar Boy football ñu nan dafa blessé blessé wul lan moko dal réellement indi également ki donc di également euh, donc euh, Habib li def euh, France également mi également la kan la parce que ki gay attaquant bi genn aduna nag ah, depuis 2012 su ma mais ko xamne tay tey ko wara xam notamment ci africain ah, ñuy seetaan football africain pendant ce temps aussi ki nga Luka Modric genn bi gay nan mom euh, Real Madrid gis ngeen ko mom amul temps de jeu bu doy et tout mom lii la def Instagram wala ne mom Real Real Madrid ci xolam la dali nek gay aussi di jégalu ci liñ deful vidéo démb lu bari ah, xawona am ay ay tolof tolof rek mais tay mom on va faire inshallah 5 cinq vidéos yi comme ñu ko daan defé Cristiano Ronaldo dafa ci naan mëninam li nga xamne nak moy donc montre bu 25 millions, 65 millions gars de franc CFA la dali may ki nga xam moy nag mooy Francis Ngannou di boxeur camerounais mi wara dali box fa nga xam moy donc mom ci États-Unis mook Tyson Fury ki nak di Lionel Messi pendant ce temps moom kat bi di Ed Sheeran mo rek mu dem daal di koy seeti hein gis ngeen ko ni Messi mi nga xam actuellement nag gars mi ngi savouré ay vacances ah, ma la Pulga moom fi nak ba weeru euh, février bi ñuy jëm inshallah rabbi dal amatu ci euh, match ki nga xam nak moy donc Yann Mbappé xam nga yaay moom da bëgg créer ay buzz yaayam nee na Mbappé ba mu nekk xale Milan la doon supporter <laughs> nee na mais Milan doon solo doon saga italien waaw yëfu Milan rek doon wax quoi fini ni comme que deg na ni Milan aussi dafa bëgg euh, ki nga xam ne mooy Mbappé dal moom daal mi ngi dugg fep yaay dal day def surenchère ni ko gay yi tuddee kii également di Léao mom la ñu tab mu nek joueur du mois du côté de la Serie A le joueur donc portugais de l'AC Milan Leao bi nga xamné dal daal gars jur du côté du Milan AC et de l'Italie ki nga xamné également nag gars Alexis Sanchez moom nag ba mu ñëwee ci Inter ba léegi ca banque daal lay top, moom gars yi nag nañu match bi tay hein ah, ci Ligue des Champions bi Inter va jouer joué dal dana nek titulaire loolu daal gars yi média italien dal di feussel Alexis Sanchez nga xamné ne dal daal ba mu joggé Marseille ba légui dal joué tout du côté de l'Inter de Milan Ki nak di Unai Emery moom ba mu ñëwee du côté donc coup de Aston Villa ba léegi Aston Villa fi ne ni ñoom ñooy quatrième Unai dafa ñew ah changer équipe bi li ma wax rek Unai Emery mom équipe bu ndaw mën na ci dara waaye équipe bu mag dal la xaw a mom dal lool moy problème mais équipe bu ndaw moom boo ko joxee mën na def ay merveilles pendant ce temps l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam dal na ngoy dàq Ajax mi nga xam mom ren mom nekkuñu ci Ajax mom ren mom wa Ajax nekk ñu si dara dara dara dara dara les joueurs donc de l'Ajax Amsterdam qui euh, nag également de Nico Williams wax naa ne ko gannaaw bi nga Barça bëgg na ko ñii di Wa Bayern Munich ñi ngi ci Liverpool ñi ngi ci Manchester ñi ngi ci en tout cas club yi ci nekk ah, ñi ngi bëri nañ daal même ba Milan AC ñi ngi jël booy bi nga le joueur de Bilbao international espagnol Nico Williams bien entendu Qui n'a di nga xam donc Pape Alassane Gueye waxoon naa ne ko information moom yàgg bu jox na yàgg de ko jox que ne day prolonger du côté de l'Olympique de Marseille parce que donc loolu moo nekk bëgg-bëgg Pablo Longoria ki di Gattuso aussi gis nako entraînement mom mi nga xamné dal daal ndorteelu mois de décembre la war a dellu bu baax baax Pape Alassane Gueye ki nak di Michael Carrick ancien joueur de Manchester United aujourd'hui mu yoll li nga xamné donc Middlesbrough équipe bu ki nga xam ne ñom ñi nga xamné nak gay 5 matchs ñu tegle bi amuñu ci défaite Seny Dieng daal di am li nga xamné donc 3 clean sheet mom nee na Seny Dieng aujourd'hui dafay dégager ben confiance ak équipe am tey moom nee na euh, def match bi passé 3 arrêts décisifs la def Seny Dieng donc nee na aussi équipe bo bëggee di gagner il faut aussi nga am gardien bo xamné permettre bo dougalé benn but rek nga gagner et il faut gardien bi di garder cage inviolé et qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est l'olé def kii nak di Kader Mangane directeur technique de Strasbourg fierté défenseur ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal moom nag wax na ci Habib jara nee na naam Habib Diarra woo na ma ba muy waree def choix diggante Sénégal ak France man dama ni ko su ma sañoon da ngay jouer Sénégal parce que sol mi mooy Sénégal feetale mais yow yaay def sa choix defal choix bëgg defal choix du cœur nee na nag Sénégal boo fay dem da nga def choix du cœur nee na nag moom moo dem ca France moom nag gars yi laaj nañ ko ne ko nag Habib Diarra am na chance dellu ci équipe nationale du Sénégal wala équipe nationale du Sénégal woowaat ko kii nag di Kader Mangane nee na ah bu ci bu bu ko Sénégal bëggee soxla ko booy bi tamit dem ba xool ne peut-être évolué wul fee bu ko neexee mu ñëw on sait jamais mais ce qui est sûr et certain moom man mosumaa gis cas bu ni mel waaw mosumaa gis cas bu juddoo Sénégal ah yow nga ñëw yaroo Sénégal dégg saa yi dem France Sénégal gii nga juddoo say waajur yëpp fii dañ juddoo. nga tànn franchement bon mom la rek ah moom rek comme je dis hein donc en tout cas ñun mom li wax rek ku bëgg Sénégal ñu bëgg la ku bàyyi Sénégal ñu bàyyi la maintenant comme on dit l'avenir nous réserve des surprises gis nañ fi joueurs yu bëri également yu waxoon dañu mel daal di changer ki nak di Pape Matar bo Tar boo mën football gars yi dem gi bëri naan Pape Matar dafa blessé Pape blessé wu gars yi dafa feebaroon et que waa Tottenham dañu prévoir aussi mu guen parce que feebar bi sonalu ko woon sonal yi mais entraîneur am gu xam ngeen ne Pape Sarr dafa nek ci cadre et aussi pa matassa Sarr li tax mu suwee am na leneen waral loolu nañ ci ñëw ci benen vidéo wax leen ko mais pa matassa dal gay dafa feebaroon blessé wul feebar mo taxoon ñu dal di koy génné et c'était prévu mu bañé a match bi kon dalal leen seen xal ci loolu gay li mo nekkoon information ñu bëggoon jox di tout di jégalu ci demb li ñu def benn vidéo kessé luñu ñu dal mais li ñu wax rek parfois situation yi mu ko imposé woo leen di like woo leen di abonné wa Baba Show aussi ñu ngi vidéo bi dina ñëw tay mom je vous le promets on va faire du 100 su baaxee ci yéen la su bonee si ñun jaa ngeen jëf